Euh, ñu nommé euh, euh, ñu nommé len ci ay poste de direction yu yu am solo quand même et ñu gis tamit né, ñi ngi placer sen ay nit boy bobu la greffier bi te mu dawoon kii kii Demba Touré mm-hmm. nga xamné man je vois pas en quoi il est il est vaillant bu ñu bu rek euh, ci ko xamné deug deug récompense ak gâteau euh gosse bobu ba yëf tangé ba tang jër jër jër mais dafa laal li daw soppaliku déguisé wu nek nar les images sont là lo kenn du ko fàtte ci xalé bu touti c'était pas un réfugié c'était un fuyard. mais c'est un fuyard mais kok daw la ko ci moi je dis euh, que euh, euh, c'était vraiment un un bel exemple de courage qu'il a donné ndax dafa mhm. tàng mu daw daw carrément ak ak yi ñu pour sauver le projet. Euh, non non non pour pour non gérer la continuité du projet non non dooru soit objectif. Ngagne Demba Touré dafa daw pour sauver sa peau. daw et puis daw d'une manière honteuse humiliante laqatu daw toi qui parles tout à l'heure des morts de de ceux qui ont payé le plus lourd tribut pour que eux euh, arrivent là où ils sont maintenant mais euh, face à ça moi je ne yàgg naa wax. Moi, il y, y, a des gens pour qui je n'ai absolument aucune forme de respect parce que dañoo daw man dama wax né limay nawé nit courage ci la bok. góor Yalla deug mais da ngay am ce fit tak ce fit dem taxaw nga ni conviction ngay démé da ngay xeex projet mais projet da la wara jara, jaral la jara, mais l'histoire retiendra ak ñom ñi boy yi Pastef yi ñom ñep danoo war a nangu Euh, tey un ngañ Demba Touré mi nga xam dafa jékki-jékki ñu peut ñu def ko ñu euh, élevé ko au de héros mais il a été un zéro parce que il a fui au plus fort du combat daw d'une manière honteuse déguisé wu yëg ci ay gaal euh, raam naaw naaw na dugg na ci ay pax dugg ci kii daw daw daw Mali ba yëf ya seddee mu làqatuwaat wat ba pare moom euh, mu ñëwee li li nga tagg sama xol moy il se permet de jubiler dégg mel ne ben ne héros mais ce gosse là qui je le rappelle n'est rien d'autre qu'un qu'un greffier encore une fois enquête de moralité ak ñom li ñu gëmloo woon né compétence méritologie que c'est pas un du un partage du gâteau mais waji tout le monde méritait euh, une récompense plutôt que ça n'est Demba Touré mii nga xam ne dafa daw yali daw un simple greffier euh, désolé pour le simple mais greffier stagiaire c'est un stagiaire non un greffier stagiaire déjà, il déjà acte d'indiscipline discipline de respect de l'administration un fonctionnaire on on t'affecte tu n'y vas pas on te convoque tu fuis après qu'est-ce que tu fais tu rentres honteusement Nibisi, si mu de nga daw alors que les autres sont laissés ici donc prison génn nous mëlañ mëlañ ñee leen euh, def lu toi tu fuis daw ni ñu pas suba et puis et voilà on te bombarde quand même SOMISEN qui n'est pas n'importe quoi une direction générale un gosse qui n'a jamais été euh, xam ne dëgg gis naa un master de je sais pas quoi mais quel la remplacer Bachir Fofana. Euh, euh Ousmane Sissé Ousmane ancien directeur général des mines du Sénégal. ancien directeur général des mines du Sénégal. expert en la matière. ouais. expert en la matière s'il vous plaît. Mhm. ñu dem jël quelqu'un qui ne qui connaît rien du tout. absolument rien. un fuyard. quelqu'un qui va un greffier. stagiaire. xamul greffier. mi ngi doog a génn barki dee moo njaay kooku nga jël ko xam nga yabaate weesuwul ak ñoom li ñu loo woon ne méritologie mais mais ni ñu ko comment on dit méritocratie méritocratie tu prends quelqu'un boo xam ne un un un contre exemple une antivaleur nga jël ko bombardé ko directeur général SOMISEN euh, mu yor miin nga xam ne ñun ñu ngi moo au moment où ñun suñu ressources yi ci loolu la ñu langaam au moment où suñu ressources yi ñun ñu ngi jooy pillage bi nga xam ne am na ci nga dem jël ko jox ko benn gosse boo xam ne da rien du tout boo xam ne ki kii daw daw làkk la woon fii yaar tapet bu daw muy xeex bi metti mu daw man jigéen bi sax man man man maa ngi di affronté seen saaga yeeg seen affaire yooyu mais moom tapet bi dafa daw kooku mu ñëw nga récompenser moom loolu mooy kon léegi ñee ñëpp dee leen daw tapet yi pour léegi ku ma ku war a nekk directeur général nekkal tapet nga daw nga ñëw ñu jël somi seen jox ko ko mu remplacer ay nit yoo xam lu day ne somi seen jóg nga yëkkati ko jox ko mais loolu man je dis que man ani lu ñu waxoon ani enquête de moralité ndax bu ñu defoon enquête de moralité je veux pas nommer suivez suivez mon regard fii am na ay nomination yoo xam def nañ ko fi jaayaa ñu wëndeel def lu ne man gis naa sa koo xam ne nga def jox perfusion de de de de xaw ma vodka orange la xaw ma vodka coca ah kooku te ñoom ñooñu promettre fii enquête de moralité mais ane enquête de moralité mais ana au moins compétence ana au moins expérience mais lii lu muy niroon mooy pàccoo seddoo du di gâteau voilà. non non non non non non Doudou ndax bëgg il est très gentil avec toi vas-y Doudou non qui n'est pas gentil avec moi Doudou est tout sauf gentil avec moi Doudou toi la pauvre femme sans défense moi une pauvre femme sans défense qui attaque tout le monde mais je n'attaque personne Même, je suis attaqué en direct mais je suis attaqué en direct moi par les microbes de Pastef Yannan! vas-y léegi li nga wax non, am en partie je suis d'accord ah, ah quand même tout de même waaw parce que xam nga man appel à candidature bi dam see. mais ñu dañ si gis suñu bopp. dam see am position. mais bu ñu appel à candidature sax ba Bachir entre parenthèse mais bu ñu appel à candidature man mii sax mën naa làqatu tuuti day woon dëgg rek. xam nga xam nga PDS. PDS. Uh-huh. sama parti bu mag boobu. ay waay. Doudou qu'est-ce qui s'est passé ñoom proposé wu ñu appel à candidature. waaw xam nga suba kenn du leen ko toppee. déedéet.